ñu toll ci wàccaayu màggal Daaru Xuddoos édition 2021 di 20 muharram 1443 ginnaaw gàddaayu yonent bi salallaahu alayhi wa sallam tey jii ci àjjuma ji di 20 août 2021 ñu doon amal journée de nettoiement maanaam setal mboolem quartier bi nga xam ne moom moo di Daarul Xuddoos ak li nga xam ne moom moo ko wër ngir waajal gan ñi nga xam ne ñoo fas yéene ñëw ci màggal gi mbale mi nga xam ne nag moom la ñuy amal fii ci Daaru Xuddoos at mu jot bi ñuy waajal màggal gi du lu yees ndax lu bàyyeekoo woon la ci jamono yi Serigne Mouhamadul Moustapha diir bi mu am itam euh, taarix yi ci jot a génn te ñu fe euh, ñu dina ko nettali te loola yi tege ci lu wér mooy jamono Cheikh Mouhamadoul Moustapha lañ daa amal mbale mi euh, am na ku baax ku ma wax ne sax jamono ya muy am ci loolu fekk na ma yor jikki alxuraanam waaye jamono yooyu gis nañu bale Cheikh Mouhamadou Moustapha ñëw ëmb ko ci boppam ñu ëmbal ko daal kon dafa mel ne seetal dëkk bi ci jamono yi màggal gi di bëgg a ñëw loolu ab la liggéey la boo xam ne taarix la itam te it baax na ci ñi koy def baax it ci fi ñu koy def ci suuf si it seetal ko it ku ko def ku ne am nga la ciy toppe loo xam ne seetal ko moo gën taxal ko kon nag loolu itam euh, taarix la ci boo xam ne bi kilifa yi ñëwee nag fekk loolu nekk fi ñu wóotu woon Cheikh Mamadou Moustapha euh, jëmale Serigne Cheikh ak ñi ko yóotu woon ñëpp kenn ku ci nekk bu ñëwee day yeesal loolu ngir xam ne liggéey booba kat lu faratawu la ndax ku toll ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Mustafa sallallahu alayhi wa bu buñ ko jëlee njaareem indi ko Touba mu tëdd fii ci saayir ñu di ko gis ci saayir euh, loola suuf sam tëdd ku nekk xam na ne suuf su wëloore la suuf su am ay karaama ay xarbaaxitam kon loolu moo tax euh, mbale mi saa bu dikkee danañu taxaw taxawaay boo xam ne fépp foo xam ne buñ fa jaaree mu set dëkk bi mel na mu gën balaa màggal gee ñëw comité bi ñu ko dénk dana taxaw foofa jaar ci ànd koog ñi nga xam ne ñoom la ko war a àndal ñëpp. mbooleem taalibe yi génn nañu àndandoo mbooleem mbedd yi nga xam ne ñoo nekkee ci Daarul Xuddoos fépp ñu setal ko liggéey bi nag ñu ko àndoon nag waa UCG di unité de coordination et de gestion des déchets solides ñoom ñu jël mbooleem matuwaay ngir jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di comité d'organisation bi ngir mbale mi gën a mën a yomb te nee ñu nit ñi ko setalee laatay màggal gi noonu lañ ko setalee ginnaaw màggal gi Euh, ba disposition yu bëri am nañ fii chaque année dañuy def su événement bi amee UCG jël disposition yëpp pour accompagner comité d' organisation bi ba màggal gi jaar dans de meilleures conditions. waa avant màggal moom taxawaay bi sax day day dañu dépassé ñun au niveau local cest à au niveau national sax la direction di jël jël ay dispositions parce que fi mu nekk nii chaque année dañuy réunir suñuy kilifa dañ fi ñëw barki démb fi ñëw yendu fi pour ñu xool étudier ak ñoom ak euh, suñu euh, comité d'organisation màggal bi yenn dispositions li nga xam ne chaque année dañ koy gën di renforcer ndax chaque année màggal gi day gën di euh, am doole moo tax ñun màggal gi ñu fexe a accueillir gan ñi aussi ci biir màggal gi aussi ñu jël suñu disposition fexe ba mbalit aussi ñu di ko yóbbu ci décharge bi bu màggal gi passé tam ñu mettre remettre ko ko à ba Touba nekkaat ci niveau yi mu nekkoon avant màggal taxawaay bi ñu taxaw ci Darou Khoudoss mooy taxawaay bi euh, li Darou Khoudoss ci Touba ndax bu ñu wax ne daan quartier yi nekk Touba yëpp Darou Khoudoss moo leen jur ah, moo tax Darou Khoudoss aussi il faut ñu jël ko en compte de manière a ne moom la méngool commune bu Touba ñoom it jëloon nañ ay matuwaay ngir ñëw jàpp ci bés bi nga xam ne ci la ñoo seetal Daaru Xuddoos ngir waajal màggal gi loolu nag at mu ko chaque fois bu ko defee maire lu fa nekk ci matériel logistique dana ko joxe dana joxe carburant dana joxe tout le personnel bi nga xam ne ñi ngi ci nettoiement bi sans compter maanaam camion de vidange fa nekk yu nga xam ne daf koy jox sëriñ bi mu def ay rotation yu nga xam ne lu fi di ay kër ci kër yu mag yi mu vidé ko Euh, tey jii le maire de la commune joxe na ñaari benn yu 16 mètres cube def si carburant joxe na tamit tout le personnel de la FERA ñu toll ci juróom ñetti téeméeri ndaw ñetti téeméeri ndaw d'ailleurs dañuy désensablement tey ñoo ko doon def ci penc mi. Euh, boole na ci aussi 500 litres de carburant yu mu ci boole appuyer ko comité bi pour que seen dotation en carburant yeneen oto yu ñuy àbb ñu bañ ci am jafe-jafe. wande yemul ci loolu camion de vidange ya nekk ci commune bi aussi di ñaari hydrocureur jox na leen ko tey ji pour que li ñu war a def ci nombre de def ko balay màggal gi. des na aussi leneen lu nga xam ni mooy euh, euh, maanaam programme mu désinfection bi. sapeur pompier autant pour moi service d'hygiène dana ñëw ak dotation bi mairie bi jox ci produit boobu comme ça kër yu ak penc mi yëpp tamit loolu ñu mën koo ñu mën koo waajal ba nga xam ne bu ñu yeggee ci màggal gi yàlla dana def tawféex euh, ñu mën koo màggale ni nga xam ne noonu la ko sëñ bi bëggee. mbooleem quartier Daaru Xuddoos yi tàmbalee yees ngir waajal 20 muharram di bésub màggal Daaru Xuddoos war a dëppoog le 28 août 2021 di guddi gi nga xam ne Serigne Touba bi mu wujjee suñu borom ci la ko Serigne Mouhamadul Moustapha indi ci bërëbu sell bi di Touba.